lu xew TV seen YouTube sénégalaise da nga bëgg publicité jokkowal ak ñun lu xew TV xibaar wér te wóor. asalaamaaleykum waa lu xew TV maa ngi leen kenn ku nekk sa tur ak sa sant. di leen ñaanal jàmm yàlla wàcc ci yéen xéewal seen lii ngeen ubbi nii seen télé bi yàlla doon ay télé télé ci Sénégal ba ñëpp xaj ci ak ay rajo yu bari ndax wax dëgg yàlla yéen a ngi liggéeyal askan bi wax dëgg yàlla ah macha allah yal na leen yàlla defal jàmm yéen ñëpp waa Lu Xew TV waa Lalla carton rouge Lalla jeeg awa buru këram dafa war yor pusoom di ñaw. aawa mooy ndey te aawa warul di sos waru di créer histoire ndax aawa mooy yaay kër gi daal ndax uh, lu yàqu ci kër gi rek moom moo ko war a defar léegi feebar feebaru nga sottiwul dugal nga ci sa doom sottiwul xam nga ni cher dafa bëgg yaayam ba bëgg a dee nga dem di ko dugal ci jeu bi léegi yaayam mu dugg ci jeu bi moom tamit ci mag mag du def yenn yi mag dangay moytu mag am nga fooy toll dangay jaamu yàlla di defar kër di defar ay xale sëy bi am na ba pare kenn mënatu ci dara lu ko war moom yaayi cheikh uuf leen ñoom ñaar ñëpp wax leen dëgg ndax dëgg mooy njëkk mooy mujj waaye yow laal la damay wax est ce que yow bis bu liy feeñee comme yow ni nga suuree fi nekk nii Cheikh mm, ne daf la teg déception mais yow léegi si affaire bi feeñee est ce que yow Cheikh boobaa du denc ci yow parce que tamit li nga def dafa ñaaw tey jii jaxasa nga Cheikh ak Marème sa yaay dugg ci keroog euh, ci épisode 36 am am lu nga ay gan te ñoo ñëpp ci jeu wu bi la. parce que ñooñu ba ñu jógee foofu dañoo def ci maire bi nee na euh, Marème ñooñu ñëw nañ fi wax nañ ma li def te loolu yëpp say jeu la say tiktak jeeg nag du def noonu aw bul këram ñawal ñawal yoro sa pusa di ñaw defar ba mu baax fees sa place di def na nga daan def ma ne su ma sañoon euh, nga dellu ci na nga meloon laal la waaw parce que daal awey daal awey daal doy nañ waa mais nag euh, benn côté tamit Marème na tey parce que mbirum goro yi dañoo garaaw mbirum goro garaaw na de parce que indi nañ foofu thème boo xamante ne bu am solo la ci société bi parce que man mii di wax yoo yow dund naa ko sama goro man la doon bañ a teg bët waane détail yëpp du ma ci dugg lu ndaw rek laa ci wax dem na dema dema dema dem lu nekk mu def ko mu amul lu mu deful waa waane keroog ba mu feebaree ay mbokkam di yooyoo jalax ma ko ma tey di hôpitalu hôpital su fanaanee ci kaw ma fanaan ci suuf ah nekk moom ci lu baree bari ah, ba sama loxo yi la deewee te man rek la doon bañ nga xam ne àddunaa ngi noonu indi ngeen nag foofu thème bu am solo ci mbiram ko rey ah biram moom sax ay waxam ndax biram bandi la joor mooy loolu ndax tey jii Jalika kenn xamul fu muy wujjee ak affaire parce que Jalika mi ngay waajee mais ba tey dafa bëgg biram moom dafa bëgg sëyam mais ki mu taseer mooy saay saay ndax mbiram moom mooy loolu waa nag maa ngi ñaanal yàlla ah mbirum la rek kenn ku nekk da ci wax li sa xalaat ah mais li li askan lu ñuy dund la daal li ñuy dund ci suñu société bi la et nag kenn ku nekk war nga see mën a jël njariñ taal xool la ci jëmal a kanam parce que pour yeeta la rek waa na lu waa xew lu wax lu xew TV yéen ñëpp maa ngi leen di ñaanal ah wax yal na leen yàlla defal jàmm dafa ko seen njaboot ci barki laay laa xëy la laa yéen ñëpp nekk leen ci jàmm